dalli nag jàmm ci li ñu kay xëy génte yi ci Rewmi FM Rewmi Quotidien élection présidentielle daanaka ñu ngi koy waajal dëgg-dëgg ci doom bu Ndakaaru Ndakaaru ci boppam président Macky Sall fi ñu toll nii bëgguta naagu benn yoon wala sax muy jàpp ne élection présidentielle 2019 dana yomb ci moom loolu tax na ci boppam kilifa yu APR yi nekk fii ci doon bu Dakar doon amal am ndaje ndaje moo xam ne mi ñu ngi may gët dëgg dëgg Khalifa Sall ak coalition am ngir du jar seen kaw ci élection présidentielle 2019 li ni mel yéen i cabinet élection législative yi génn donte ne ñoom waa nguur gi ci boppam ñoo jël raw gàddu gi ci yoon bu Ndakaaru waaye daanaka li ñu rawee ñu nekkee ci kujje gi du dara président Macky Sall Rewmi Quotidien xam na ne xel ne ma ngi ko taxu Sénégal am na doole dëgg-dëgg ci Sénégal rot na ci Ndakaaru lu ci mel ni Bamba Fall ci doon bu Médina Moussa Seck Thierno Bocoum ci doon bu Parcelles Assainies Malick Gakou dirante ak mbëgg dëgg-dëgg ak Alioune Sall ci ya ci tëngeen moom opposition bi la jox loxo parti démocrate sénégalais taxawaay askan wekk niñ leen bàyyi xel ci doon bu ndakaaru Assane Samb ne buñ ci boolewu tamit waa convergence bokk gis-gis bu Pape Diop lii lépp tax na ba président Macky ci boppam ci mbañ gàcce tax na ba fi ñu toll moom ci boppam mu xam ne xel ne bu doon élection présidentielle day dem deuxième tour te bu demee ci li ni mel mën na jafe-jafe lii lépp Assane Samb président Macky présidentielle yi wala déet observateur ne ak lu ci mën di dollu ne faw ay coalition am coalition yi ni mel ak kenn ku ne ka nga war a mën a ànd ak enquête yi ni kay ne président Macky Sall kan moo mën a taxaw ngir diranteeg moom mbagg bu Khalifa Sall ak Karim Wade moom yéen i kaay bi le moom mën na ñoo jàpp ne bokkatuñ ci rawante bi ci élection présidentielle 2019 ndax tege nañ leen wett ak liñ leen di président Macky Sall yéen i kaay bi kay buy xel ñaar na xel ñaar ci Idrissa Seck Malick Gakou Abdoul Mbaye ba ci Ousmane Sonko ci ñi nga xam ne ñi mën na ñoo nekk dëgg-dëgg ay adversaire am leneen loo xam ne li moom làmb yi amoon ci stade Demba Diop ñu bëri ñàkk seen bakkan lu jëm ci mbirum Thione Seck ak niñ koy joxe ñi baaraamu tuuma ak ay awkaam ak li ñuy sàkko Assane ñu war a ci fan ñu daal di lu jëm ci mbirum Bamba Fall ak yeneen ak yeneen dossiers yi yëpp yéen bi ni ñi ci loxo yoon bu yàgg ba tey te boobu ba tey dara liiru ci li liir bu mooy conseil ci ñu war a atte maire Ndakaaru Khalifa Sall danañu taxaw nekk partie civile ngir lépp xam ne jëm Ndakaaru Karim Wade mi ñu doon toppee alal julliwut mujj ko génne ca kaso bu rëbës ba yóbbu ko ca Qatar Qatar go Dakar Times président Macky Sall ci boppam passeport diplomatique numéro 15 DDD 03089 la jox Karim Meïssa Wade gannaaw ba une heure du matin jotee ngir mu mën a génn ci kaso bu rëbës ba dem ca Qatar Qatar googule mu nekk yéen i cabinet donte ne ma nga fa waaye président Macky Sall mi ngi koy béyi xel ndax président Macky Sall dafa béyul xel ña faatu ci ba fa bay toll ci fukk ñeent wala déet réew mi li bu daal mooy gannaaw faatu yi amoon ca Dakar ca Medina Gonaas ak ca Bétente yooyu yëpp président Macky Sall dafa jëloon ay matukaay moom ci boppam dem ngir jébal njalam ak njàllu ko réew bu Sénégal gi yëpp waaye bi la yoon moom ba njombe yi amee ca diwaan bu ba fa bayot boobu ba tey président Macky Sall tegu fa tànkam Luc Sarr ne fi ñu toll askan dañoo bëgg wax rek di wax waaye président Macky Sall mu dem ca boo fa bayatu wala mu ñàkk fa dem amul lenn xam ne lii war nañ ko cee mën wax ndax kenn mënta wañ loxoom mu def ko ndax ñu def mu boo jël jéego bi ni mel mu taxi diini kabi di vox populi ne président Macky Sall ak faramason yeek ni mu taxawee ci seen xew woowu ngir ñu daal di ko fay tox doxalee dàq ko président Macky Sall ci boppam wane na ci ak mat imaam Massamba Diop ne ni ajuma ji ñu daal di seenu danañu amal ay ñaan ñaanal président Macky Sall ci taxawaay bu xam ne bi amal na boppam daal nay subventionné Pro lu toll ci ñetti téeméeri million ci bopp kii di Yann Diop di président académie ma waat jàpp fi ñu toll nii néew na lool ci koppar yi ni mel président Macky Sall di ko dugal ci wàllu Ligue Pro waaye ak lu ci mën di dollu ne moom Yann Diop jàpp ne yooyu léew nañu fexe ba cër bi ci gën a am solo ñu jagleel ko foot amateur ci réewu Sénégal